ne leen gis ngeen fu mu nekk nii ça c'est fii da di mën carte sur table. mënoo loo def ma appuyé loo def ma appuyé si. jeex na. loo wax ma appuyé la foo def nag nag ma woo téléphone ma wax. parce que jeex na léegi xam nga nu may def. Mhm. man may dem na leen dama damaa bëgg léegi ngeen teg sur table ngeen lett wala ngeen firi sol kii mënu ci dara ñun ñooy kilifaam soo leen ko mënul. man ma def conférence de presse muy léegi nag ma ne leen dinaa oote conférence de presse man ak papaam ak frère ne leen delloo leen ñu suñuy doom te suñ ñu delloo suñuy doom xam nañ ne comme yow. xam nañ ne bëgguñ les léegi dañuy wax ne duñ bëgg nga dem parce que dañ bëgg dañ bëgg yow nga wax moo tax ñuy lay téye kon. su ma fëggee ci taabal ji wax leen loolu dina am changement dina am changement am amul benn problème yow yow nekkal ci jàmm man dinaa fexe ñëw ne leen far force damay dem seeti ko man. le tey mun ngaa dem Sénégal ñëwaat loolu du problème te sooy dem. mais dem fan ñëwaat fan ngay dem. dama lay wax ndax man foofu laa nekk. non man parce que Amérique laay dem sax loolu ñëpp xam nañ ko. lenn de naa la ko eh, de naa la ko ñuy jox ñeneen ñi ci ay milliards Fatambe de ay ñaan Fatambe xaw ma ak ñeneen ñeneen yi. jox yow. pourquoi yow ah yaa ngi kanam la. yow sama kanam yow mi nga xam ne yow dañ la dañ la jël jëf loola loo xam ne wóor na leen ne li ñuy wax ni yëpp dara du ci dëgg ay fen la ba pare te mënuñ laa jox ci milliards yi lu tax ay yow kenn gënu la ci yee dëgg wala déet hm? nga taxaw di leen bàyyi noonu ah? Ah? loolu loolu loolu loolu da nga war a taxaw léegi maa ngi nii damay jóg sangu nii pare dem jumaa ja tey fii laay jullee almadi léegi su ko defee dinaa oo paa bi su ma jullee ba pare xool li ñuy def dégg nga ok ok ok aj sa d'accord ay preuve la rek yoo xam ne yëpp dama koy teg pour jéem koo de jéem koo def incha allah loolu la loolu laa jëm di jéem a tray ni xeex moom xeex lay doon rek jaajëf